ñu taxaw sur les les les jeux d'alliance comme ni ko maître Sow tuddee sànq au sein du conseil municipal de Guédiawaye la réalité bi nga xam ne moom la wane mooy Ahmed Aïdara n'a pas la majorité des des des des adjoints au maire pourquoi parce que y a une alliance entre Benno Wallu Sénégal ak Gëm sa bopp quelle leçon faudrait-il tirer de ça. alliance suppu kanja. Hmm. alliance. suppu kanja contre nature <laughs> <laughs> ah, de toutes les façons ce qui s'est passé à Guédiawaye pour man euh, c'est une réalité boo xamante ni ça dépasse même les localité mhm. parce que euh, quelque part bu bu ñu defee seen première euh, réunion conseil boobu qui s'est terminée en queue de poisson. Mhm. dañu ne woon Abdoulaye Wade wax na ni. waa PDS yi waa Wallu yi. Mhm. dinañu revenir aat pour voter. yónnee na ba sax délégation. très bien qu'est-ce qui s'est gisuñu leen. Uh, uh, Ahmed uh, Ahmed Aydara. Mm-hmm. jegente trop ak Bougane Gueye. Mm-hmm. man dama yaakaaroon ne sax keroog bu muy seen élection yi le lendemain buy def euh, émission boobu. tës tës balaa moo wax kenn ci patron bi lay njëkkee. Mm-hmm. parce que bu ñu naan trahison foofu lay doon ba pare. parce que waa gëm sa bopp yi effectivement ñële la ñu votel léegi loolu ça veut am nañ sax poste euh, adjoint au maire je pense. waaw tout à fait troisième bi defe naa xaw ma waaw am nañ troisième waaw léegi léegi léegi pour diir mhm. quoi. pour diir quoi pour diir que ñiy woote opposition Sénégal duñu ay opposant ñu si bëri. Mhm. te nga bokk alliance. Mhm. alliance ak ku nga xamante ne nii tu soupçonnes que quelque part il n'est pas sincère il n'est pas franc. mooy que da ngay participer ci élection moom ba mu falu ndax sa aura. mu pare dem engagé wu ji ak benn c'est le traître. donc tey jii hmm. bi sa micro dafa fay. voilà waaw c'est bon. pour man c'est important. Hmm. une grande coalition. mais coalition boobu bu ngandee te ñenn ñi lu xew ci biir ñu informé. le pouvoir. Mhm. bu nekkee dañu dem ba war a euh, euh, comment comment dire comme ce qui s'est passé à Guédiawaye. Mhm. ñu ñu ñu ñu ñu arbitrer entre mhm. les deux coalitions ñu dem far ci pouvoir bi nan ngay comprendre loolu. c'est comme ce que je disais aux élections législatives de 2017. nga xamante ne nii tout le monde se disait que ne coalition bi nii bu taxawee. véritablement dañuy yóbbu le pouvoir en cohabitation. lan la ñu mujjee ñu jékki-jékki. Euh, le PDS waa PDS dem na le. bàyyi fii xalifa Sall ak Idriss Seck donc pour man tout ces faits là. il ne faut pas ñu dissocier ko. il na faut pas ñu dissocier ko. am na tey ña nga xamante ni ils sont dans l' opposition. ils travaillent avec le président Macky Sall te bu ñu àndee ak ñoom coalition. lii pour man moo ci moo moo ciy xew. Ramatoulaye ce qui s' est passé à à Guédiawaye dañ koy yemale ci contexte Guédiawaye rek contexte ay alliance au sein euh, d' une euh, de conseil municipal xëy na ñoom waa Walloog waa Gëm sa bopp. bu leen Ahmed proposé woon xëy na mën nañ jubóo waa PDS ak Aliou Sall ñu leen proposé finalement wala da ngay gis comme comme comme Mame il faut regarder plus loin que ça. Mhm. je pense que euh, wax na ko il faut regarder plus loin. Mhm. li ñu gis ci euh, Guédiawaye je pense également am na ci beaucoup de conseils municipal municipaux yoo xamante dafay xew. Mhm. Euh, xëy na Ahmed man li may wax mooy li mu waroon def mooy bañ ko élire moom waroon na déjà. bu ko élire rek mu jéem a ut waxtaan ak ñi nga xamante ni ñoom ñoo nekk ci. Euh, les différentes waaw commencé wax ak ñoom parce que yëf yi également da ngay ñëw euh, en politique loolu wax xool ñi nga xamante ni yow. bu fekkee mën nga leen am de ton côté nga yokk say conseiller loolu mënoon nañ ko ci euh, ñii nga xamante ni ñooy responsable de de yi mënoon nañ ko ci gën a xelal mhm. peut-être que moom am na yenn yoo xamante ci politique bi il maîtrise mhm. mais je je me dis que ni tey jii peut-être alliance bi nga xamante ni warul bett kenn sax mooy euh, wallu mi dem jàppale Benno Bokk Yaakaar yàgg nañ ko yow ba bettu la. non 6 et 9 la ñoom ñaar <laughs> ñaari fi mu nekk nii ñoom dañ koy bañ au niveau de wàllu mais. Euh, li ci kanam raw li bët ko moom di donc waruloon kenn nga xamante ni ñee dem dañ ko jàppale. Hmm. Euh, waa sa bopp comme ni ñu waxee ñoom aussi mënoon nañu prêter main forte à Ahmed. Hmm. mais toujours est-il que na teel a commencer pour parler yooyu discussion yooyu ak ñi nga xamante ni su comme ça mu mën a am le maximum. Hmm. Euh, de conseillers mais nii ak. trois conseil yoo xamante ni ci la ci ci la ko jëmee. Mhm. blocage rek lay indi au sein de. seen léegi su ma bëggee bi autrement est-ce que quelque part aussi mënuñu am njort que xëy na euh, muy Bougane Gueye Dany. Mhm. muy Abdoulaye Wade le chef du PDS. amuñu trop trop maîtrise ci les membre du conseil municipal. que ni Abdoulaye Wade bu envoyé envoyer benn délégation là-bas intimer leen ordre ñu ñu ñu soutenir Ahmed Aïdara amul ci ñoom maîtrise. c'est bien possible est-ce que loolu mënuñu ko xalaat aussi mën na nekk. mën na nekk xëy na moom euh, comme maître Wade joxe na leen directive pour ñu dem jàppale ke mm-hmm. mais ba ñu demee gis nañu leneen xëy na dañoo gis ay proposition yu alléchante yoo xamante ni ñoom ñii dañ naan kat seen intérêt fii la nañ duñu parce que ñoom yaa na kii su kii te dis que ni way ñoom ñoo financé seen campagne ah ñoo def lépp gisuñu euh, ko leen appuyé ah? bien sûr bien sûr am nañu doon wax bi Wade bi Wade envoyé gars yi que ni peut être dafa mel ni xëy na comprendre la situation ndax li nga mën ci ñu nga xam ne sa ay leader lañ mënoo ko ci ñoo xam ne ay conseillers lañ te conseillers déjà ñu fàttali ko. Hmm. du ak payoor goo xam ne moom lañ leen hmm. jox de ce fait bu fekkente ne mën nañoo négocier pour am des postes adjoints. tey jii le PDS par exemple amul benn pouvoir ci conseil mënu leen sanctionner par exemple. non non même boo leen sa parti bon. mais quand même euh, Moustapha mënuloo mënuloo dem campagne électorale. Hmm. nga ne Aliou Sall mi fi représenté Benno Bokk Yaakaar. pendant tout ce temps defu fi dara dañu war a changer.

Ahmed Aïdara si ça continue comme ça lim bu ko def Guédiawaye du ko def. xaw ma lan mooy programme am mais du ko mën mais quand j'entends les experts ñuy wax moo di ne finalement les adjoints là amuñu benn pouvoir ah, bu ko mën a empêcher mu def li mu bëgg def mm-hmm. donc est-ce que nekkuñu di coow ci loo xam ne jarul et que Ahmed boppam il a tardé à comprendre que maire qu'il est c'est pas les adjoints qui vont euh, euh, nu ñu koy wax sax ñoom ñoo ko mën a empêcher mu liggéey. Mhm. même même en réalité sax. Euh, mmh. majoritaire ak minoritaire bi ñuy wax nii sax il faut ñu relativiser ko parce que euh, bu ñëwee maire délibération lay liggéeyee. Mhm. bu ñëwee ci projet yoo xamante ni ñëpp gis nañu que ni am na pertinance ci kañ boobu. Mhm. te délibération c'est souvent euh, ouvert au public. duma yaakaar que nit dina ñëw dinaan day opposé wu juste pour opposé wu. donc yooyu yëpp ay système politique la rek pour jéem a wane que ni dañu am benn mainmise alors que benn mainmise la preuve maire yu fi jógee est-ce que mës nga ci dégg problème délibération boo xamante ni bon euh, dañuy ñëw taxaw ni par force ñun ñoo majorité bi que dañ koy bloqué juste parce que dañ ko war a bloqué. Hmm. état kay mooy bloqué ay financement mais pas délibération yi nga xamante ni conseil la. foofu la inquiétude bi am Pape parce que man ah, foofu la inquiétude parce que man j'ai j'ai eu ah, xam bon c'est pas une chance j'ai assisté fekk naa hmm. euh, bi mbay Ndiaye nekkee maire parcelle. Hmm. Moussa Sy mii jóg bëgg ko faa ak le le PDS certainement mais man fekk naa ay ay réunion conseil municipal euh, bu bu bu parcelle boo xam ne Mbaye Ndiaye mënul def dara. lu mu wax Moussa Sy ak ay partisans jóg am na benn jour Moussa Sy chemise bu bleu la sol lem kii ba fii ak benn tubéy bu bees ñëw taxaw lu mbay Ndiaye wax ñu ko ci suuf. Mm-hmm. finalement mairie bi dafa bloqué ba Mbaye Ndiaye dafa mujj bàyyi. Mm-hmm. Mm-hmm. est-ce mënuñu ragal loolu. Euh, man dama jàpp ni que loolu sax c'est une très bonne chose gis nga il faut parfois maire yeeg euh, même parce que bu ñu bu ñu suivre logique boobu Moustapha kon dañuy naan Macky Sall dafa wax am une majorité à l'Assemblée nationale parce que bu amul assemblée nationale une majorité dañ koy forcer cohabitation. te mm. bu amee cohabitation du liggéey. Eh, eh, te dañ ko war a challenger finalement est-ce que c'est pas une une chose que ñu ñam cohabitation. mais c'est ça ak Guédiawaye waa l'assemblée nationale. fépp la war a doon dañu war a dañ leen war a challenger mais pour ñëw ci euh, vote yi nga xamante moom moo fa am. gis nga gis nga il a été porté par Benno Bokk Yaakaar. Mhm. Benno Bokk Yaakaar. ñoo porté candidature am da ngay trahir sa consigne de vote. ñu def le quatrième adjoint. il a accepté mu trahir consigne de vote am ñu def ko quatrième adjoint. donc waaj dafa accepté trahir Bougane. absolument hmm. moom ñi ñett conseil lañ fa am. Hmm. c'est la preuve seen treizième bi nga xamante ni mooy treizième conseil euh, adjoint adjoint euh, maire maire Guédiawaye. Hmm. il a été euh, euh, li nga xamante ni moom mooy euh, coalition Yewwi Askan Wi parce que kooku accepté na suivre li nga xamante mooy consigne de vote bi si délibération bi. Hmm. ni c'est nga leen hmm. jox consigne de vote. ñu am benn offre bu alléchante du ñu la hmm. faale sa consigne. dal na PDS dal na keneen ak keneen ak keneen parce que gis nga mbir bi. wax na ko léegi am na ñoo xamante ni du ñu naan du ma nekk simple conseiller du ma am dara. alors que boo nekkee adjoint euh, maire am na ay avantages peut-être mën nga am oto mën nga am. am na mbokkus kay moom waaw loolu kese la léegi bu hmm. nekkee maire bi jox na la benn proposition bu concrète ay dara foofu la waroon jouer ak gars yi te man sax loolu ànduma si. mais je pense que ni lii mooy lu gën. Hmm. mais dinaan dañu war a dem négocier ak ñeneen ñi. pourquoi et au nom de quoi. Hmm. mais c'est ça. di naan war na mën a am suffisamment de conseil il n'a pas été euh, trop politique parce que demul waxtaan ak ñoom jox leen li nga xamante mais bu nekkee. jox pour yow c'est tout l'honneur de de Ahmed euh, mu bañ a négocier. mais mais c'est ça parce que boo négocier woon. bu négocier woon comme lu gars yi bëggoon. Hmm. mais tey jii dina am majorité mais à prix.

oui délibération c'est au cas par cas. situation bi day ñëw ñu ne dañu war a déggee. pile peut-être que tey euh, je donne un exemple simple. Euh, Ahmed ak Khadija Mayekor. Euh, mhm. euh, ay alliés la ñu. nga mhm. fa ñoo fa demoon mhm. pour USN. Ahmed mën na poser un acte à Golf. Euh, mais bien sûr qui n'arrange pas Khadija elle vote contre. absolument loolu kese donc nañu relativiser mbiru minoritaire ak majoritaire amul benn benn sens ci par rapport ak li nga xamante ne mooy lii ñëw. sauf on me précise également que c'est ah ci ci kii yeeg yooyu donc ça c'est important à savoir alors euh, pour terminer euh, très rapidement yaa ngi wax ne yaa ngi wax ne le cas Guédiawaye euh, c'est intéressant parce que war nañ ci jàng lu bare bari mais est-ce que quelque part également ñu le vote des populations yi nga xam ne dañu exprimer mm-hmm. mu ngi wax sànq 5000 voix ñi ne 6000 voix pour une coalition et cette coalition tey jii ne contrôle pas le bureau man def na à la veille des élections locale mm-hmm. defoon naa accordé woon naa au journal l'exclusif benn euh, interview. Mhm. may wax ci élection locale yi. Mhm. ma ne il faut que parti politique yi. Mhm. wàññi pression bi ñuy def ci élection locale yi parce que élection locale la ñu wax. réalité locale la tey mën nga mën ngeen bokk parti. ci au sommet mais au niveau local bokk leen vision bokk leen doxalin. oui c'est possible. comprendre mhm. moo tax ngay gis coalition yi c'est alambiqué dafa jaxasoo mhm. et à fin parti yi amuñu benn mainmise si ci conseil si si conseil locaux yi parce que mhm. ñoom ñoom ñooy ñuy apprécier les relations yu ñuy am au niveau local qu'est-ce que j'ai proposé dama ne Alexis de Tocqueville boroom xam-xam boo xam ne ni moom bind na bu baax si affaire décentralisation moo newoon comme démocratie bi au niveau présidentiel au niveau parlementaire yi parti yi dañ ko téye. Mhm. nañ may citoyens yi. au niveau local ñoom ñu exprimer wu. pour gérer les affaires communes. Mhm. ñu war si xejal ñan. ñu war si xejal les associations les associations professionnelles les associations communautaires les groupements. les corps de métier les corps mhm. dugg pour gérer les affaires communes. le le quartier le carré. la cité. oui xam nga mun mm. am un principe de participation citoyenne. donc j'ai dit. Mm. j'ai proposé que pour les élections locales et ça d'ailleurs l'avancée c'est quoi mooy les indépendants. Mm-hmm. Mm-hmm. ak le suffrage. bari bari yu ñu gagné. comprendre mm-hmm. loolu ñu ngi améliorer suñu système démocratique man li ma gëm. mooy ëllëg que les partis politiques même si même bu ñu amee seen nit. que ñu bàyyi nit ñi au niveau des élections locales. ñu décider dem xool ban système la ñuy organiser wu pour mën a participer. sinon on va arriver toujours à ce type de. de, de situation madame Laye Tall euh, maam mi ngi koy wax euh, sànq que ni la leçon enfin une des leçons yu ñu mën a tirer ci loolu mooy euh, monter une coalition c'est bien. mais il faut monter une coalition avec ñoo xam ne euh, avec des gens sûrs euh, je mets des ñu jëm ci ay élections locales ñu bari ñu ngi wax ne il faut que yeewi askan wi élargir cette coalition là sinon sinon euh, Benno Bokk Yaakaar day majoritaire largement à l'Assemblée nationale est-ce que avec ce qui se passe actuellement mën nañ jàpp ne loolu mën na nekk. xam nga loolu yëpp day dellu si une question de responsabilité individuelle. Mm-hmm. de l'acteur politique. Mm-hmm. xam nga maa ngi koy wax ne pourtant nekk na occasion boo xam may nañu ko bu ñu bëggee servir la cité dañuy servir la cité. mais de façon responsable. xam nga par parloo. Mm-hmm. ak xeexante. andi na ba nga xam ne sénégalais bari dañu bëgg engagé wu si parti di militer mais dañuy seexlu yenn jëf yi nga xam ne yenn politiciens yi ñoo koy am man dama jàpp ni mooy mm-hmm. meilleure façon pour amal njariñ sa askan. nga jaamu yàlla si côté boobu nga jegeñ yàlla suñu borom. Mm-hmm. si politique nga mën a jaar pour def ko nga politique nag nekkul seulement le militantisme partisan. non xam nga tey jii pour wax la rek sànq maa ngi wax manque d'élégance manque d'élégance manque d'élégance pour diir quoi bu fekkoon ñi doon concourir au suffrage des de de de géejawaay. Mhm. ñoom ñëpp géejawaay jëm ci kanam moo leen taxoon a jóg. Mhm. géejawaay man ngeen a xëccoo mais bu ñu xësee ba jot ngeen ñun ñëpp géejawaay moo ñu taxu a jóg. Mhm. amatul ay discours. duñ ko yombalal mbir mi. dina xam ni dinañ xeex ak moom dinañ ko fexe dinañ ko bloqué. loolu boo ko defee xeexoo ki ki ñu en réalité population yi ngay xeex parce que population yi en réalité ñoom ñooy bénéficié ci lépp lu mairie bi di def pour ma dañoo war a toll si foo xamante ni. Mhm. politique jaamu yàlla lay doon mais pas ay coups bas ay crocs en jambe ay woronte ak ay li gën a bon nag. Mhm. te loolu dama si insister te ce n'est pas le propre wax nañ ko ville de Pikine. Cheikh Dieng bi nga xam ne tey jii daanaka moo fëpp ay conseillers. mais am nañ benn lot de conseillers boo xam te nii ci bëggam si bopp lañ génne woon. nombre de dix ou de onze. dem ànd ak bennoo bokk benn. moo moo l' esprit du benn élection kese la ñu ne si benn élection bi si nañ xool ki majoritaire mooy gagné et la commune et la ville dans ce cas problème du posé mais ñaari scrutin la pour wax leen ne la. en réalité nañu war a defar benn. ñaari sécurité ça veut dire que population yi voté ñoom xam nañ bu baax la ñuy def baax ki bëgg a yóbbu. ñoo tànn Mame Birame Wathie fii ci ci commune bi. tànn Ramatoulaye ci ville bi. dem jël seen keneen dem teg ci seen commune. koo xam ne mm-hmm. peut-être àndul ak Ahmed Aïdara lan moo tax tey jii ñooñu ñëw bëgg a taxaw et day fausser sax le jeu démocratique. Mm-hmm. parce que man man maa comprendre ci ville boobu nga jógee nga ni am nañ ay ay yoo xam ne ay conseils d'office de bi te foofu noonu ko jógee xam nga ni population yi Ahmed Aïdara lañ choisir pour mu nekk seen maire nga ñëw ne damay bloqué loolu rafetul amoon na à Thiès. Talla la ak Idriss Seck ba nga Idriss Seck sampee mu nekk le maire ñu dogal quelques quelques mois. ñoom ñaar ñu fantasiroo réeroo rek. ci conseil la am répercussion. Mm-hmm. conseil yi nga xam ne ñoo favorable à Idriss Seck commencé di bloqué Talla Sylla kon ñooñu li leen tax a jóg du commune bi lu leen tax a jóg du askan wi. xam la mooy tax a jóg ay calcul politique et politicien et ça c'est de ce petit politique xam nga léegi nag mooy ñëw si législative yi hmm. effectivement buñ sañoon de ànd bi mu nekk ànd bu sincère mu nekk àndu nawle loolu mooy c'est l'idéal mais xam nga nit nag buy ñëw ak ay calculam doo ko xam mais ñun bu ñu sañoon képp ku ñu àndal dañ koy jox une présomption de bonne day ànd ak ñun ñun ñoo bokk xeex bi ñoo bokk projet bi hmm. li ñu dëgmal muy Sénégal Sénégal jar na ko kon ñëw leen ñu jàpp ci liggéey bi te c'est vrai que dina gën a compliqué parce que xam nga fii c'est 557 collectivités hmm. plus plus 46 départements là c'est nga war a investir di nga teg ay te encore une fois division de l'opposition day day fragiliser l'opposition. bu ngeen ko xamee rek baax mënoo ñëw taxaw <laughs> di mënoo ñëw taxaw di bëgg une cohabitation. ba pare di diviser wu. beneen bi ñaareel bi mooy. ñu jeexal man ragal cohabitation. tey jii une cohabitation responsable sax dina permettre à Ahmed Aïdara de bien gouverner une cohabitation responsable gars yi dañoo ñëw taxaw hmm. Ahmed Aïdara bu naree jeng ñu tegar ci yoon bi mu liggéey géejawaay Ahmed Aïdara bu naree kii dañu ko jàppale parce que li koy jàppale bu ñu koy jàppale suñu bopp la ñuy d'accord merci beaucoup foofu la a